mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di leen ziyaara bu baax di jiital ci nuyoo bi suñu kilifa yi fi toog di jéggalu baax ci kàddu yi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati seen kanam dafa nekk ay kàddu ndigal yoo xam ne daa munta ñàkk ñu indiwoon ci ay xasida gàmmu ñu jëloon ci benn muy jës xulóob li alamil xuyóob jësbul mooy li nga xam ne dafay ñor di xol li jëmee ko ci yàlla mi nga xam ne mooy aji jëmee ko ci yàlla mi nga xam ne mooy aji xam kumpa yi xasiida gi xasiida ak tarbiya la xasiida gi nag amul tarjumaan sëriñ tuubaa mi ngi ko commencé ci bismillahi rahmaani rahim xasiida gi mu ngi ko ubbee ci ak cant dinañ ci jukki ñett ba ñeenti bayit bayit bu njëkk bi mbooleem xeetu cant yi ñel na yàlla mi nga xam ne mooy dëgg tey aji fës yàlla ma nga xam ne ak nekkam ñel na ma man sëriñ tuuba nee na fan ca téere ba di alxuraan bay aji leeral ànd ak mbooleem xéewali ñaareelu bayit bi danaa sant sa borom mi aji màgg sant goo xam ne gu bari la goo xam ne du dog may aju julli ci aji tedd gi wommat na mbindeef yépp jëmale leen ci yàlla ci biir xasida gi nag am na ci bayit boo xam ne daf see yàlla juróom yoon woo naa la yow sama boroom woo naa la yow sama boroom woo yow sama boroom woo naa yow sama boroom woo naa la yow sama boroom ba muy juróom yoon yàlla na nga sant suñu liggéey ci darajaay ka nga xam ne moo ci darajaay ka nga xam ne moo ñu tànn di kañu wormaal ba tey ci biir xasida gi sëriñ bi ñuy wan meloog yonent bi di ñu wax lan mooy gàmmu nan lañuy gàmmoo ak ku màggal gamu lan mooy sag pay am na nit ñu jàpp ni gàmmu bidaa la bidaa nag mooy loo xam ni dañ ko sos ci ginnaaw yonent bi wala loo xam ne defu ko wala defuñu ko ci kanamam mu saxal ko kon képp koo xam ne danga jàpp ni gàmmu bidaa la kon mën nga bàyyi yii yu si mel ni kaamilu alxuraan kaamil bi si ginnaaw yonent bi lañ ko dajalee def ko ci benn téere lu si mel ni tomb yi ak maska yi yooyu ci ginnaaw yonent bi la ñëwee ngir bis bi Seydina Ousmane doonee xalifa ngir dafa am ku doon jàng iyaaka naabudu wa iyaaka nastain mu yàq baati kon yii dafa doon ay mbir yoo xam ne ci ginnaaw yonent bi la ñëwee te nit ñoo ngi saxal di ko matal tey ñu ñëw ci diggante sëriñ bi ak gàmmu sëriñ bi wax na ni yow gàmmu sa àq maa ko xam te dinaa la ko jox ba mu mat sëkk dundalaat na gàmmu ca atum sasas asas mooy 1301 ci gàddaay gi tolloo ak 1883 fi ma jaar ak gàmmu gàmmu dem na ba ci kanamu yàlla gërëm loo ma boppam ba tey ci jës bu sëriñ bi wax na ni magal gàmmu lu màgg la fa yàlla luñ barkeel la fa yàlla luñ wormaal la fa yàlla màggal ko war na ci képp koo xam ne danga jiite mbooloo nan lañuy gàmmoo bépp xeetu jaamu yàlla tàmbalee ko ci jàng xasiida jàng alxuraan jàng xasiida zikkar ak waxtaane yonent bi ci jës bu sëriñ bi leeral na ni ñamu wu saf suukar bu saf xorom ak ndawal lan mooy pay ku màggal gàmmu màggal ko ci sunna mooy teg ko ci yoon dina la wommat jëme la aljana màggal gàmmu dafay dolli say xéewal képp koo xam ne màggal nga ko kenn du la xisaab yowmal ku képp koo xam ne dundal na gàmmu mel na ne ku fekkee xare badar képp koo xam ne def nga ci sab dërëm mel nga ne ku fekkee xare badar ak ku dundal ko daf lay sàmmal sa njaboot ak sa kër dundal ko dafay saafara sa xol kon yi lañ indi woon ci xasida bi di jësbul xuloo waaye dañuy barkeelu ci xasida bi tudd nahjul xadaayi laaj di ngir paju aajo sëriñ bi di ci jàngale ay teggin te teggin bokk na ci loo xam ne munta ñàkk ci koo xam ne dafa dëgmal yoon bu baax sëñ Tuubaa wax na ci nëx ju ne yoonu teggin mooy yërëm ndaw niki baayam ak ndeyam wekk mag def sa morom kon sa bopp ngir yàlla teggin yu rafet bokk na teggin yu rafet bokk mooy bopp jikko yi ay teggin teggin yu rafet mooy bopp jikko yi bokk na ci teggin képp koo xam ne danga nga laabire ku amul ak amul teggin dangay mujjee doy bokk na ci ay teggin képp koo xam ne danga ami teggin waroo benn àq ci nit ñi danga war a jàpp ne ñépp yaa leen ameel àq Sëriñ Tuubaa waxoon na ni ci mujjug jamono juróom yi rekk mooy tax nit mucc mooy noppi jekki jaamu yàlla liggéey ak loo am doyloo ko kon yii buñ ci tënkoo suñu lépp naa yewen àdduna ak àllaaxira ñu ngi jéggalu baax ci kàddu yi